ñenn ñi ñi parce que pédagogie la parce que gis nga justice pédagogie la war a nekk. man li may regretter ci affaire bi nga xamante ni pendant deux ans cristallisé na toutes les attentions mu am ay trouble am ay moor wax dëgg yàlla décision suñ ko ci doon rendre première premier objectif décision bi moom mooy décision bi dañ ko comprendre d'abord. yow décision bi comprendre nañ ko wala comprendre ñu ko mais ci ñi ñu koy jëlee ci ñi ñu koy jëmalee ñooñu jàng droit. ñëpp ñu jàng droit voilà ñi xam droit ñu xam procédure yi disqualification du problème ci ñoom parce que c'est une technique juridique qui est qui est utilise tous les jours fait bi tel la de euh, euh, kii bu graaw la dañ ko jëlee viol muy crime ñu xool ni les condition de viol taxawul mais beneen infraction la ñu disqualifié ko loolu amul professeur d'université avocat wala magistrat bu la wax ni technique boobu mënul am voilà dafa am c'est admis maintenant nag da nga ko war a def avec beaucoup de de de de de de de de pédagogie et malheureusement pédagogie bi man li ma dégg keroog ma jàpp ni c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. oui te loolu war nañ ko corriger dégg naa le ministre de la justice daf ko wax ñaari yoon ne la décision n'est pas encore motivée. loolu c'est extrêmement grave gisuma lu gën a grave loolu. pour yow lan moo si grave. non le fait que mu ne benn juge pour une affaire aussi grave qui a retenu toute l'attention rendre na benn décision le premier juin ñu toog ba 15 jours après. mu ne motivation bi disponible. cest notification bi. non non motivation. motivation motivation. quand il dit que disponible. moom mooy décision bi motivé guñu ko loolu c'est extrêmement grave loolu moom xaw ma kan moo ko wax nag waxee noonu mais loolu amul lu gën a grave la c'est-à-dire quand vous de motivation motivation man man motivation laa wax xam naa li ma wax d'accord xam naa li ma wax parce que juge benn obligation la am mooy décision bi du ko motiver en fet en fait et en droit droit d'accord mu wane ni man décision bi lii moo tax ma jël ko voilà ci lii laa sukkandiku te ah. jour audience bi li may wax jour boobu juge bi dafa waroon ñëw lire la décision lire ko ba mu jeex wax ay attendu yam wax ni que lii lii moo tax ma disqualifié loolu ñi fa nekkoon journaliste yi ñu xam danañu xam au moins exactement exactement fan la ñu jógee ba yegg fenn loolu su fekkee dañoo ñëw disqualifier les fi alors que motiver wuñu loolu je pense que c'est une faute extrêmement grave et loolu euh, lu graaw la loo xamante ni euh, wax dëgg yàlla ñeneen yeneen réew yi suñ ko déggee euh, danañu xeeb danañu xeeb suñu justice pour yow dafay dafay peut-être confirmer li ñu naan ce procès est purement politique c'est une tentative de liquider un un, un opposant peut-être. man du ma yegg foofu gis nga Adja bi tey man la fekk ma nekk opposant du ma tere ma mandu li ma wax depuis le début de cette affaire communiqué bi ñu génnee ba léegi duma ci varier moom mooy depuis l'avènement du président Macky Sall gis nañu mu ngi instrumentaliser justice et ça c'est factuel. opposant bu fi gën a fës da ngay génn du jeu mu ñëw nga ñëw dégg ni am na liñ koy toppee mhm. ñun nag duñu wax musuñu wax ni kii liñ koy toppee amut parce que dañuy maandu dañuy maandu parce que gisuñu lu ñuy wan le contraire tout à suñ ko gisoon ñu taxaw ñu wax ko et ça je suis très clair là-dessus maintenant une justice à deux vitesses moo dul justice justice kumba am ndey kumba amul ndey nga nekk pouvoir lépp loo def parce que ñoom ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy def kenn du leen topp gis nga mbiru Covid bi ba tey nii amul benn suite. Mhm. nga nekk opposition nga def wala defuloo ñu lay topp. loolu je pense que nit ñi loolu la ñu e je pense que loolu su deñul euh, wax dëgg yàlla luy triste la ci ci justice bi ma wax euh, parce que on a des ressources humaines extraordinaires. nit ñu bëgg liggéey ay jeunes yu embrassé fonction magistrat bi parce que dañ ko gëm mais malheureusement wax dëgg yàlla euh, euh, suñu bëggee liggéeyal justice aussi. Mhm. fekk ni euh, justice boobu dafa am ay pression yu exécutif yu muy def ba justice boobu du mën a def du mën am place am ci démocratie. je pense que c'est c'est